dañu fa def quartier d'affaires wala ñu xool lu ñu fay def loo xam te ne da koy soppi ay gratte-ciel wala lu leen neex à côté mhm. y a pour dire que loolu rek war na tax ñu délocaliser ko foofu délocaliser aussi taxul ne da koy war a jël rek yóbbu ko dans la banlieue ou feneen yaay xool foo koy yóbbu mhm. ni ci dem foofu bu ñu leen soxlaa programmer leen tout est digitalisé dans ce monde là ñu xëy suba teel acheminer leen ñu leen war a acheminer ak des normes ak respect mais conditions yi ñu nekkee non seulement Rebeuss wala benn prison ni dundee ci biir kaso yi dafa metti mais condition yi ñu leen di téye parfois aussi dafa metti am na garde yoo xamante ne il sont corrects sérieux professionnels mais Babacar bi xam na ne am na garde yoo xamante ne dañuy dóor ba mu faatu. Ah, oui bien sûr faatu. ah si je dagg bi am na benn booy bu faatu rëbës mu ngi tudd Kémo. Mhm. booy bi garde bu mu jotee. chaque jour dama ko doon répété ani ma ne ko gars yi bu ñëwee jël caméra de bi en face dañ si garde mu jël te dañ ma gis maa ngi taxaw di atte ku ma woon laaj ma leeral garde bi mu jotal xam naa ko garde bi mu xeexal xam naa ko gars yi dañoo dem wëkk booy bi wëkk dóor ko bu ñu bëggee guddi gi dóor ko ñu xëy ñu faatu na xam luñ bind certificat de mort bi. Hmm. mort naturelle. d'accord xaaral mu eggali ok oui oui non a raison parce que. Hmm. affaire yu mel noonu day xew. donc dafa am plusieurs choses dëkkin bi promiscuité bi. man sama premier jour rëbës bi ñu ma dugalee sama chambre treize mhm. dama chance benn benn garde ñu xamee ma génn chef de chambre yu ne ko kii Fadil la tudd jox ko place mu tëdd xam nga place bi lan la mhm. gis nga matelas yu ndaw yi moitié bi ngay am mhm. ci kaw euh, sunu sunu sunu sunu kii sunu sunu si fi ñu doon tëdd mais li lay choqué mooy dangay gis ay xale yu ndaw gis nga ni ma toogee nii kenn ñoo toog dugg nii kenn ñoo toog dugg nii kenn ñëw toog dugg nii ba ki si mujjee tànk yi day lang buy nelaw nii lay toogee nelaw ba fajar yaa ngi dégg soo wàccee munoo wàcc parce que nit yëpp dañoo tëdd à même sol soo génnee cour wala noppaliku yàgg kañe yeneen nekk nii c'est-à-dire que y a pas de c'est-à-dire condition yu extrême moo nekk ci yenn prison yi mais aussi waxuñu ko pour charger waa prison bi parce que xam nañ ne ressources yu ñu soxla pour def ko amuñu ko. Hmm. donc faut voir l' aspect bi am ci densité bi am ci prison yi te amuñu espace maanaam dankaloo bi ci prison yi mais aussi traitement wu ñi nga xamante ne ñoo di yore parfois qui sont parfois pas forcément professionnels hmm. mais aussi seen nekkin ci biir kaso bi faju bi naka la demee mhm. lekk bi naka la demee. ak dundin bi ci biir naka la demee dafa mbir yu bëri yoo xam ne dañ ko war a càmbar mais la chance qu'on mooy comme ni ma ko waxee rek président ak PM xam nañ lu bëri ci prison mm-hmm. te ñun ñi aussi man maa ngi liggéey ci benn benn document benn benn benn benn document te am naa ay parties yu ma réservé loolu parce que aussi dund nañ lu bëri ci biir kaso ñoom Babacar bi def na fa benn grève de la faim du métti maa ngi koy fàttaliku maa dugg seen nekk di leen raisonné pour ñu arrêté di waxtaan ak ñoom mais aussi gis nañ nit yoo xamante dañuy xëy am éruption cutanée seen yaram bi yëpp yàpp gis nañ fa amoon na épidémie gaal benn instant gaal ci prison bi parfois di gis nit soxla sax médicament yu mu war a fajoo mais boo demee ci infirmerie bi infirmerie bi amul médicament yu doy pour pour faj nit yi donc ay bonne volonté ñoo mën à travers des personnes externes wax leen ñëw déposer affaire yi wala nga feebar sa feebar ñëw ñu bindal la mais mun naa am loolu amu fi soo amee ay moyens lu ko gars yi jënd la ñu jëndal la mm. donc c'est des situations extrêmement difficiles man je jamais porté de lunettes dans ma vie mais chambre yi ñoo nekk mais dafa day xaw a lëndëm si biir day xaw a am ombre bu yàggee booy liir wala ngay xool ay document bu yàggee day affecté sa bët yi donc toog naa diir soo a am rendez-vous ma amee rendez-vous ci laa commencé sol ay lunettes te ma ki ma doon xool dafa ne ma soo sol lunette sa dund ma ne ko non non non mosoo sol sa lunette ma ne ko non c'est pour dire que sa bët yi commencé na yàqu. Mm. il faut nga sol lunette obligatoirement te loolu prison moo koy indi. voilà donc am na ay feebar su le plan social aussi ak sociologique am na affaire yu muy def da ngay gis seen jabar di dem seen njaboot yi di brisé wu et mais aussi retard bi ngay accusé mm-hmm. boo génnee amoo dabaatal parce que réinsertion dëgg dëgg dëgg dëgg daanaka amu fi da ngay génn ñu bàyyi la ak sa bopp moo tax da gis ñu bëri bu ñu génnee tey rëbës suba suñu ñëw war nañ mën commander assez de bracelets électroniques takkal ko nit ñi def ko sax astreinte c'est-à-dire que on peut ne pas demander aux ndax bëgg nga wala bëggu parce que sama classe bi bu ñu ñu bañ. du mm-hmm. la bracelet. moom su mais non mais am na fu xeex bi toll. bëggoon naa bracelet parce boobu lan moo xew mooy naa génn am lu ma raak su may jàppan ñu jàppan ma ci fula parce xeex bi tolloon foofu mais dama ne tey toll na foo xamante ne nañ jël ay bracelet désengorger prison yi. Mm-hmm. parce que yi metti d'accord alors ce séjour carcéral allez-y allez-y waaw waaw insertion bi après parce que bon repris de justice réinsertion euh, mhm. bon seulement ça se posait pas parce que yéen xam nañ ne euh, politique moom moo tax post Facebook moo tax wala daal justement Pape dama lay dagg foofu tu sais dama lay wax mm. tout le monde en a besoin en fait de ce suivi psychologique là xam nga ñun on est très solide de la tête ñoo stoïque mm. man président Sonko Sonko maa ngi fàtte bi ñu seetloo seet foofu ñu toog bi ma gisee dafa dafa gis rek xam naa mu gis comme ni may comporté woo oh, quoi mu ne ma lu stoïque parce que man bon je suis de la tête c'est calculé ma gars yi sax quoi. Mm-hmm. mais ñëpp tolloowuñu am ñoo xamante ne boo leen xamee ci biir xam ni brisé nañ leen boo nekkee ñoom ni di dund chaque jour nga koy xam. Mm-hmm. am ñoo xamante ne bi ñuy génnee boo tooyee ñoo waxtaan xam ni am na lu ñeen def. man gis naa nit ci juste bi ñuy présenté livre bi en référence ma gisaat ko quoi. Mm-hmm. ñu tase waxtaan ni ma téye waxtaan ak moom secoué noonu tooñ. mais dafa dem ma xam ni booy am na lu bëri dindi si moom. Mhm. barke alxuraani karim sax te président mooy def loolu. léegi ba bu ba léegi peut-être. yow comprendre sax. Pape c'est-à-dire mhm. dem non c'est-à-dire fi may waxee grand grand mu ngi wax ci ci mental. dafa nekk grand boo xamante ni peut-être royukaay woon patriote yi. Mhm. parce que toujours serein toujours calme. grand Fadilou prison boo gisee toujours correct toujours serein toujours calme je me rappelle très bien am na benn jour ñu génnee ko prison mu dem tribunal. ñu ñëpp ñu am écho parce que plus am écho day daw. fajaru dañ koy bàyyi tey. mooy bi nga demee gars yi yokkala sa dossier bi ak affaire Ousmane Sonko ko voilà criminalisé dossier bi. quand il est man dama dem fekk ko télécentre. Mm-hmm. jour boobu noonu romb mais dama ñëw toog fekk ku calme serein cool man ma xool sama bopp quoi ma ne imagine si c'était moi quoi. Mm-hmm. donc grand bi vraiment euh, bëggoon naa bëggoon naa xam exactement si séjour carcéral carcéral bi di lan moo ko doon mooy force boobu noonu quoi motivation boobu noonu que mu ah, serein parce que man chaque jour su ma ko doon gis il est toujours serein d' accord léegi répondre ci loolu sérénité bi waaw loolu loolu mental de fer bi nga ko dundee non loolu détermination la quoi <laughs> mhm. c'est-à-dire que xeex bi ñuy xeex dañ si dem benn benn ngëm-ngëm boo xamante ne dafa grave quoi bokkul ak li ñuy génne nii de cest à que man je m'étais dit bi ñu nekkee foofu ku ma xam ak ñi ma doon fréquenté comme ñoom Ousmane yi ma bokkaloon cours di télé nag yooyu ñoom booy Lamine Niass ak yenn gars yi fa nekkoon ñëpp. Mm-hmm. dama di waatal ne Macky Sall waat laa la wax de waat sérieusement mënu am dam suñu kaw. te dama koy waat si yàlla. non parce que ñun mënuñu bañ yëpp. Mm-hmm. sacrifié wu nekk ay nit yoo xamante ne dëgg-dëgg mën nañ bañ a dugg ci yëpp quoi di ko def parce que dañu bëgg suñu dëkk te yoon salaahu salaam wax ni kuy défendre sa deret kuy défendre bu la lew wala sa réew boo ci deewee shahid nga ñun deewuñu ñu ngi dund te Macky Sall bii ñun ñu ko. Mhm. dañoo bokk réew mi muy doxal loo xamante ni d'accorduñ ci. Mhm. moo yore état yore armée yore moyens yëpp ñun baat rek lañ am ne ko d'accorduñ ci. mu mun jël yóbbu nga di nga jékki-jékki tiit tërëf ñu tas sa parti. Mhm. te chef de parti bi bi bi ñu tasee suñu parti. dañ ñëw woo ma ne ma fajulu kaay s'il te plaît ma ñëw gis benn waay di jooy sama buntu nekk ñu tëj ñu nii de mais waa ji mi ngi taxaw nii di jooy jooy yu métti étudiant lañ koy wooyee mi ngi rëbës. tout le monde le muy jooy jooy yu metti gars yi ne ma fajulu ñëwal ma ñëw ñu ne ma étudiant mooy jooy ma ne ko étudiant mu ne ma ne ko tu sais affaire bi ngay gis nii day jàll mais comme li ma doon wax Macky Sall du am ndam suñu kaw dama nga toog nga relax li boo ko defee dafay garaaw quoi ma yëg tëdd imam bi ñëw woo ma ne ma fajulu dafa am lu ma bëggoon ñu ma ne ko ah, mu ne ma man maa ngi soo comprendre lan moo tax ngeen di seen combat bi mu ne pour lan mu ne dama gis li ñu def muy metti yëpp mag yow ñu bokk nekk mais gisuma benn affaire bu changé si yow ma ne ko parce que sama xol ak sama xel mhm. barki Seydina Mouhamed Macky Sall mënu ko atteindre c'est-à-dire que naa yendoog moom añandoog moom reyal moom ndékkanteeg moom li mu yore soxlaw ma ci dara mais man ma cent franc ci xel barki alxuraan mhm. <laughs> loolu nag laa doon transmettre ñi nga xamante ne ñooy sama rakk ma nekkoon ak ñoom cest à que nit mënu ma gis ba xam ni dama lii man dara su ma su ma jour jour jour visite gis na li ma solo nii li ma sol nii jour visite nii lay solo ñëw waxtaanee ci dalal seen xel ñu dem seen yoon ma toog dund sama kaso. te du même su ma amul lu ma metti sax du ma naka du ma nangu muy génn mais man musuma craqué musuma demandé dara au contraire ponkal yi nekk fii candidat wu boor bële ki nga nekkoon seen candidat sax mus na contacter suma waajur pour ñëw suñu kër. nga mu wax ma ko. ma ne ko je ne suis demandeur d' absolument rien. Mhm. soxla ma ko gis soxla ma daram. yoon dafay effort yëpp pour yombal samay affaire yooyu noonu dama radicalisé wu. boo fa ñëwee sax di jooyee ko jooyee dama lay supplier ne la bul ñëwati su ma xamee ni yaa ngi ñëw du ma génn. parce que je préfère su may dund lu metti mu dund maa ko choisir et puis xam naa ni sama ngëm-ngëm man waa ji mënul ko ne li yëpp ñuy nekk ci dëgg mu nekk ci loo xam ni du dëgg mu am ndam suñu kaw loolu mënul nekk. mais mais au début de tout ça. une une question. au début de tout ça un post Facebook waaw. Euh, bi da ko jar nag. xam nga post Facebook bi xam nga DJ boobu ñuy wax noonu DJ euh, benn doom bu góor la Dijé nekk suñu kër di liggéey sama yaay depuis yàgg na 2004 euh, ou 2005 quelque chose comme ça ni mu la xamee ni mu la mu dëkk suñu biir kër la preuve biñ ko faagalee